moom école classique la nekk bu dee man mii maa ngi ci état bi di jàngale man EFA laay jàngalee maanaam école franco arabe ren ji amoon nañ ay candidats comme ñi ñu présenté wu amul lenn lu wute téere yi ñu jàng fii maa nga ba fuuta fa laa koy jàngalee ñooyam képp amul lenn lu ci changé kon mm, boo boo nekkee ci daara dugal fi sa doom boo déggee jeneen wax da ngay gàdduwaat sa doom ba ci ñëw ba ci oustaz ni ko oustaz man de dañ maa wax nangam leeral ma leeral ma wala bu fekkente ne sax toll na la noonu nga dem ci keneen ku jàng nga ni ko ah man kat sama doom téere yi la yore lii lañ koy jàngal ca daara ja xoolal ma ba xam lii programme la wala du programme xoolal ma ba xam lii bu ko toppee fu mu ko jëme ndax dana ko jëme fa ñëpp jëm wala dana ko jëme ci geneen kër moom dana la leeral fekkente ne dëgg rek ko ñor kon ngeen bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax parce que tamit wax yi day bari ay gis ñu naan école diw jàngalewul école diw amul programme da nga koy laaj lan mooy programme programme nekkul ab leetar bu ñu wala aw kayit bu ñu def ci poste naan sama programme yi déedéet fi mu nekk ni ñun ñii suñ kër yi kër goo gis am na programme am na kër yoo xamante ni si heure bii la ñu añ am na kër yoo xam dañuy dajaloo ndékki am na kër yoo xamante ni si ku yeewu da ngay dem ndékki am na kër goo xam borom kër gi xaar bu borom kër ñëw ñëpp dajaloo ndékkeendoo waye nak programme kër ga do dugg ci bunt kër gi ñu taf ko fa bo duggé ci benn kër do fa gis benn kër ñu la programme kër gaangi ni waye waaye kër ga amna programme amna heure teud amna heure yew amna lo xamni ko ko def dañ lay yar borom kër ga ma ngay xol lolu moy programme moy doxalin rek moy comme ni ngeen ko seigne muntaha mu bax ni programme mi tek bokku na ci programme bim tek fi université bu maga maga maga mag kep ku gor ku lu ba am fi bac université bobu da nga am possibilité jangé fa maanaam continuer fa sam njàng loolu tamit lu amaam solo la maanaam loolu dafa soññi ñaaxaat ndaw ñi ni leen li ngeen daan wuti ci beneen dëkk da ngeen koy am fii yàlla xam na ni man xam naa ay nit ñu baree baree bari dañoo amoon problème fu ñu continuer seenum njàng ren jii nii nii nii ñi ngi jàng te ñi ngi ci école sëñ Muntaxa bi di fi jànge fayuñu dara dañ daan fi jàng ba am fi diplôme bu ñu bëgg am te duñ fay dara inshallah yeen tam bu ngeen lo yalla mën na dogal bu ngeen deme ba am bac man ngeen fa duggu jang fa lu ngeen fa bëgg jang te du ngeen sori seeni wajur du ngeen dem fenn da ngeen jang ba xam li ngeen wara xam am diplôme yi ngeen war am te du ngeen dem fenn loolu yit lu mata bayyi xel la wa kon bu ko defé loolu ab soñé la won rek ci fatali len programme daara ji nan lay doxé kon nga bayyi xel ni loolu waaye mën a wax programme bu la nit ne école diw jàngalewul nee ko lan moo di njàng bu nee la amul programme nee ko lan moo di programme mooy programme mooy école moom am nay classe benn am na ay téere yu ñu jàng day tëj di tijji bu heure tëjam jotee day tëj bu heure tijjim jotee day tijji dëgg la nag heure tëj bokkut ak état lu ñu tëjee parce que moom day yéex a tëj parce que kenn ku ne ak sa doxalin parce que même ci état bi sax am na école yoo xam ne duñ tëj université yi ren rek lañ tëj mais université yu si baree baree baree bari daawuñu tëj ba fi mu nekk nii université bu Saint-Louis tëjut iniversité bu sëñ Mourtala bi bu sëñ Mamour tëjagul iniversité bii bu sëñ Mountakha bi tëjagul kenn ku ne ak ni ngay doxee tëj moom loolu du si dara waaw kon dañuy jàll ci programme bi njàngum alquran bi dañu woo dongo bu ñuy wax Abdul Hakim Lo moom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 وقل رب اغفر عنهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الصاحب إن كل نفس لما عليها قافز فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافع يخرج من بين ثلب والترائب إنه على رجه لقادر ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تذكرة لمن يَحْصَى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى

you. بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي صدق الله العظيم مقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوغي سنت برمبي تبارك وتعالى te gën ngaa rafet aw sant di julli ci bi sallallahu alayhi wa di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu defal ñu di ñaan a cheikh Mouhamadul Muntaxa Mbàkke sunu borom yàggal ko fekk mboolem taalibi yëpp ak mboolem julli ñëpp mu mel ne jotaay bi ñu daje tey la boo xam ne ay xale yoo xam ne dañoo def liñ naan examen ñu nattoon leen ba yàlla dogal ñu yóbbu leen mbàkke comme niñ ko baaxoo defee ñun amuñu école amuñu amuñu droit d'examen xale bi amaguñ ko su jàngalee ba examen jot dañuy yóbbu mbàkke ñu waajal la liñ man def nañ ko ba yàlla dogal na xale yi ni ko usan xaari waxee ñaari xale rek ñoo ci ñaar rek ñëw jamut waaye ñi ngay gis ñëpp ñu solo seen bulus yi macha allahu taala am nañ seen i diplôme ci kanam tuut dana leen ko jox seen kanam waajur diplôme yaa ngi nii ci comptable ji école bi nag bala ma cee wax ni ko Oustaz Xaadim waxee mooy xale yi dañoo jël bis bi tudde ko maanaa ab iadaadi bii maanaa xale yee toog ci ginnaaw wallahi yàlla lay waat sama borom raw nañ tudde leen feere na bi tuuti na wallahi xale yi maa ko ci li ñu xam ci ñoom ci jàpp guñ jàpp ci daara ji ak bëgg guñ bëgg daara ji ak tamit yittewoo guñ yittewoo daara ji man kay li ma leen ñaanal leen rek la yàlla li leen yàlla teel seytaane ndax seytaane moom lépp lu yàqu moo ko yàq yàlla yàlla teel seytaane ci diggante yëpp rek incha allah école bi nag programme am nii la dafay jàng ba mois de août mu tëj ndax trois mois bi moom li may wax sa suur ñetti weer dafa bëri ci xale bu ñu tëjal ko ko su ñu demee trois mois yi jeex su ñu demee ba jàng ba août dañ daan ko ba septembre duñ ko jàng aren nag xale yi dama leen wax ne leen boo leen demee ba ñëw tey jii ni yi yéen tëjal naa leen ak waa CM1 tëjal naa leen ngeen noppalu nag xale yi kat sonn ngeen waaju met na njàng bi métti na programme bi nag mooy école bi dafay jàng ba am liñ naan certificat boo ko amee danañ la transfert su collège collège moo nekk si ginnaaw fii moom du collège moom waaye collège moom ci ginnaaw soo génnee tuuti rek collège ba fa lañ jëm mooy ñi solver balaa yi ñoo dem collège fekk si ñee collège tamit dafay jàng anglais di jàng français di jàng arab ndimbal la nag ci koñ bi ci koo xam ne yëg na ndimbal ci ndimbal ko yàlla dimbale misaal mi defe naa ne am na ci yéen koo xam ne doomam doon a jànge mbàkki wala doomam moo ngi jànge gaar ba na kër kin saa ñaata la joxe paas ak su dee ñaata lay fay loolu yaakaar na bëri na de lool fa tabaarakallah wala bëri wut loola nag soo calculé tey ñun la ndimbalu tool ni am na ci koñ bi jàppale waa koñ bi jàppale ndaw ñi loola alhamdulilahi rabbil alamin ci sant borom bi tabaraka wa taala programme bi nag su dee fii tamit dañuy jàng français di jàng fii li fi nekkoon ci ay jàngalekat mat na juróom ñaari jàngalekat li fi nekkoon ci ay jàngalekat man na juróom-ñaari jàngalekat yi nga xam ne ñoo nekkoon fii ci primaire bi doon doxal loolu nag kuñ wax ne daara ji moo ngi dox war nga koo gëm te biñ leen di ba imtihaan yóbbu wuñ leen si ñun dañoo toog génn suñu question di leen jox dañ leen yóbbu ci jàngal leen xëy jële leen Mbàkke ne leen dem leen na gën dem soo leen demee na gën dafa examen ñu xool ñeneen ñeneen nattu leen xool leen ñooñu ñoo leen natt ba xam ne jaadu na xale yi am seeni sahaada ñu jox leen seeni diplôme yenn ci doomu ñi nga xam ne seen ndàng soriwul wala boog ay nit ñi ñoo xam ne dañuy waxtu dañu xam lañu wax da ngay dégg ñu naan diplôme ko reconnaître uñ ko xanaa man waxuma waxuma xale yi waaye borom école ba mag mu toll ne moom ak ñeneen ñu toll ne moom xanaa ñi mu ñëw doon naan am nañ jot ci diplôme yoo xam ne wala bul wala wala yoo xam ne ñu dépassé nañ ko suur moo ko njëkkee dégg damaa jël diplôme bi jox ko benn xale jox ko Moussa Moustapha mii na ma dama bëgg firnde ne ko jëlal diplôme bi nga yóbbu ko police gendarmerie boo demee ñu légaliser diplôme bi nga ne ko ba mu demee gendarmerie ñu légaliser diplôme bi ndax diplôme bu légal ko du ko du ko kii diplôme boo xam ko du ko du ko légaliser ba mu ko yóbboo dañ ko légaliser mu indi ma kon ñu naan diplôme valable ñu leen dañoo tardé ñeneen tamit ñaan nja ñëpp benn lañu te téere yi nekk fi moo nekk fi Oustaz Xaadim yu état ko di lii ko ba Louga te moo nekkoon fii di jàngal dong na amul saxaar bi nekkul saxaar bi nekkoon fii moom dong la moom lañ état jël yóbbu ko ba Louga dama ko concouré am amee Louga la ko yóbbu fee Fuuta la ko yóbbu ca Fuuta da ko di jàngale foofu te lan koy jàngale lan koy jàngale fii dong lay jàngale foofa kon nit ñi ni ngeen yow yéen waajur yi man nag campagne ma politique ma nafewu ma warewu ma dañuy jàngale ci programme ñun nag jàngale lañ gëm incha allah ci lañ nekk wuy ji suñu borom subhanahu wa taala ku daw ñoo taxaw te wallaahi yàlla laa lay seere ne ku xam ne ne lii xaalis sewuñu ci xale collège bi wax naa leen ko ren ñoom comprendre nañ ne naa leen yéen waa yéen waa collège ñëpp soo leen fayee ñaari jàngalekat yi wallaahi collège ñëpp suñu fayee ba pare mën dafay ki doon jàngal anglais ba français bi ak ak ki doon jàngal ko fay kon xam nga yéen a ngi ko taxawal ngir gëm ne liggéey bi yàlla la kuy liggéey doo daw doo découragé wu loolu moo ñu kon nag yéen maa ngi liggéey soññ gone yii nag nekk ay ndaw am na tamit leen loo ne mooy yàq njàngam gone yi mu soof ma lool mooy takk gi xale yi maanaam genn ko la jàngu ci ma am démb bërki ñoom te bërki ñoom Fallou Ndiaye mi toog na rek la ayatam daa ne man amee ñaar fukki laa am bag mbaye tamit wax ko soo xool ñu si kon nga xam ne woon xëy ñëpp ay xale lañ sëñ bi xale boo xam ne ñaar fukki ak benn lay am nga bëgg teg doo ko bàyyi mu jàng su paree am ci lu am lu mu la jàppalee am lu mu la dimbalee wallahi yéen seen yaay yi xam ngeen temps yi marché bi xam ngeen ko xam ngeen ne góor yu bëri fi ñu nii leen dinañ métti na kon bàyyi leen gone ñu jàng may leen saas xale yi ñu jàng nag ñu ti dara xale yi ko ci jàng ba pare wallahi li ka bëgg am du ko am sëñ Tuubaa nee na ci téeréem ba laa tasdaril bi risqi israbul wara mutakappilu risqa alladi yataallamu sëñ Tuubaa wax kii jàng mu soxla dara su paree yàlla jox ko lépp taala te yàlla nag mooy lépp nag wa maa min daabbatin fil ardi illaa alaa rizquhaa kon su ko defee sama kàddu mooy ndokkeel jàngalekat ni réew mi fi waaye dana leen sant lii nag du feesane daara ji lii du feesane lii moom mën nañu ëpp ci feesane dong la ku ne xam ne ne école feesane moom déwén la war a doon incha allahu taala lii xale yi am seen i ñu bëgg leen ñu am seen yére yu yi nga xam ne examen yi ñu ko organisé woon képp koo xam ne da ngaa am an mega dañuy jox blouse bi war a jàngi déwén loolu moo waral blouse yi te xale sol lii mooy ndimbal li nga xam ne élève bu am boo noppee uniforme bi war a jàngee déwén ci bi nga amee sahaada bi la koy joxale ko sol xale yi ne kon nañ ko sol toog nii waaj ba jekk daal di toog nii incha allahu taala kon su ko defee kaddu gi ci teg mooy jox sa xaarin mu séddale diplôme yi woo xale yi defe naa ne am nañu war a jox seen i seen i kaddu ñu ñaanal nag sama maam. maa uy jaax donte toogul jotaay bi dama wax wallahi tas ñaanalu ma ko du ñu ko di génn kàddu te ñaanaluñ ko suñu borom yàlla yàggal ko fi yàlla sàmm ko yàlla aar ko maa uy jaax benn jëmb gën joo xam ne ku nekk ci daara ji la macha allahu taala di siyaar léegi soxna na baax suñu jotaay bi léegi soxna Arouna Ndiaye macha allahu taala xaaral jërëjëf tabarakallah jërëjëf si ñoom dafa mel ni dañoo am seen oustaz boo xam ni seen xol dafa sedd lool si moom ñu bokkoo sargal parce que dañoo gis ni oustaz boobu daanaka lu mu man ak lu mu mënul des fois heure yi mu war jàngale sax day ñëw di leen ko jox loolu yëpp ngir bëgg leen a jaajëfal rek kooku ñu ngi koy wax oustaz ngañ dafa génn nekku fi oustaz ngañ mooy oustaz bi gën a gàtt oustaz mii rek dafa gàtt loolu boo ko gisee waaw oustaz bu baax a baax a baax xam naa dina ma dégg ndax dinañu suivre ci réseaux sociaux yi oustaz dafa jàmbaare lool macha allah oustaz mi da koy tagg fu mu tool man mii fa ma nekk nii damay woo téléphone di ma wax ak njàmbaaram di ma wax njàmbaaruk mboolem jàngalekat yi nekk ci biir daara ji moom nag dafa ràññeeku ba mbokki jàngalekatam mbokki élève am yi nga xam ne moom lay jàngal seen xol dafa sedd ci ñoom kon oustaz fa nga nekk yaa ñu fay dégg nga xam ne sa dongo yi nga bàyyi woon fii ci Touba ñoo la jox cadeau bu rëy bi neexal bu rëy bi ñu dajji ko wala ñu bàyyi ba mu ñëw. waaw kon mu doon kumpa si moom. moo defee mu doon kumpa si ñun bopp saa seen koo dajji ñu xool ba xam. ah nee nañ ñu bàyyi ko kon. ñu ni Papa Gallas lañ koy jox oustaz ñëwal ñoom tamit seen xool dafa sedd ci oustaz ci taxawaay beek loolu ñu jox ko kado jërë ngeen jëf jërëjëf waaw kon ngeen tàccu du ngeen leen tàccu sax ñoom tam def lu rëy di sargal oustaz jërëjëf yaa oustaz jeex na ah jeex na kon jërë ngeen jëf kon dañuy jàll ci taw tawziul jawais maanaam remise de diplômes ñu joxe diplôme yi waaw mu ni salle bi ñu nekkoon da ci am élève bo xamni mo joggé fi mo jël 3e manam ka jitu ka top ka ca topat moy ñettel ba moy soxna mbayang nañ ko tacc bu baaxa baaxa baax non tamit dafa ràññeeku du ci li rek na yaayam ñew soxna mam jaara ka ni xaw ni won lekku ci rek ngeen man jere ngeen jëf kon li dafa am solo lol gis ngeen xam ngeen ni mu dem dong la fi nekkon di def CICP macha allah jërë ngeen jëf kon dañuy jàll ci muslimatu tin kon dañoo bëgg moom tamit yaayam ñëw jox ko diplôme am ay jàmbaar lañ moom jàmbaar na yaru na dafa yaru lool mën a reetaan na bari jàmm daal jërëjëf saa jox ma beneen tur bi da ngeen koy may loxo bu baax a baax a baax a baax ngeen tàcc ko yéen daal la ngeen a jëyee. Musli Diagne. ah. Musli Diagne. Muslimatu Diagne mooy kan. Mama Diagne waaw Muslimatu Diagne. mën a yàqu si turi naan mama muslim ni mu moom tamit na yaayam ñëw. ku ci topp. ku ci topp. Fallou Ndiaye. Fallou Ndiaye. moom kan moo ko teewal ana Ndiaye soxna maam Jaara Ndiaye ñëwal moom tamit fi la nekkoon waaye ba mu fi jógee ba tey day nemmeeku daara ji lu daara ji xewle rek day ñëw rakkam moo nekk fii dafa yaru lool soxna maam Jaara moom tamit ma ngi ci sëy ba ngeen ñaanal ko génn leen moo ci topp jërëjëf Ablaye Dia yaayam ñëw na moom tamit surtout maam Oumy Dia mi nga xam ni suñu maam ju baax jooju maanaam daara ji moom da jàpp rek def ko këram def ko daaraam lu baax lu mu xam wax nañu ko lu baax lu mu am jox nañu ko suñu maam jooju yàlla na ko fi yàlla yàggal yàggal ko fi lool te wéral ko te guddal aw fanam jërë ngeen jëf waaw ku ci topp Serigne Fallou Fall soxna Maguette Fall moom tamit. Hmm? soxna. du mooy yaayam. Awa Thiaw soxna Awa Thiaw jox ko diplôme bi. sëñ Fallou. moom itam ku ràññeeku la woon ci njàngum alxuraan mi. jàmbaar la lool sax kay. jërëjëf. Zeynabou Sey. moom tamit dafa jaar rek fa magam jaar muy soxna faat Sey macha allah ngeen may ko loxo soxna yaayam ñëw na mi ngi nii na ko ñëw jox soxna Fat Xumma ñoom tamit ñu jàmbaar lañ ci daara ji dañoo fonk daara ji lool ay jàmbaar lañ wax dëgg yàlla lu ñu woote rek ay jàmbaar lañ ci Faatu Fall soxna Faat Fall Wow. oustaz mi ngi wax lu daw yaram nee na moom mi bi fi nekk jardin la tàmbalee nga Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. daan Wow. Wow. loxo bi di Wow. indi Wow. Wow. muy muy Wow. Wow. Wow. fi indi Wow. Wow. Wow. mu Wow. Wow. bu ndaw Wow. Wow. ñu ni Wow. Wow. fi diplôme Wow. Wow. dafa sedd xol Wow. Wow. soxna Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. wow. wow. wow. wow. wow. wow. wow. Wow indi mu dàng si ba léegi ma ci am lu ma neex kon nag yàlla na duwante ne ba am ci li mu bëgg Papa Gallas daara ji mu bëgg yàlla na ko am wax moom ma yomb nag wante xam naa waay amin macha allah noonu mu ne bi mu ñëwee ba tey moom tamit dafa jàpp daara ji rek jàmbaar la lool ci daara ji wax dëgg yàlla soxna Penda Penda Njaay boo Penda Njaay soxna Penda Njaay ñëwal ana yaayam yaayam na jege si soxna soxna Mati. Thiaw Thiaw Jaw soxna Mati Jaw toog Ndey Fatou Diagne Ndey Fatou Diagne Ndey Fatou ñëwal yaayam mu ngi fi ñu ngi ñëw mhm. Ndey Sow Ndey Sow Ndey Sow de yàgg lool <laughs> nday Sow moom itam ba mu lu tuuti la fi daan ñëw ba mu lu tuuti la fi daan ñëw yéen ñi mën ngeen ko seede nday Sow mi léegi magum jëmm la mi ngi nii day dem marché di di togg añ di def lépp ab jànq la léegi nday Sow jàmbaar la moom tamit. kii la xoolal macha allah. waaw. Zeynabu Dia. maanaam moom oustaz moom nee na fa mu jógee moom da koo yéem mi ngi jógee ba ginnaaw marché maam Binta. jàmbaar la lool ci njàng mi wax dëgg yàlla xam ngeen loolu dafa am solo nit léeg-léeg nit di def njàmbaarte goo xam ni day yéem sax jàngalekat yi waaw waaye noonu la mën a mel jala sant jamoom ku ko sant rek faaw fu la ji day mat moom waaw yaayam moom sant bi neexul caam la sant waaye <laughs> jërëjëf fàllu fàllu li sëñ Fallou li yaayam ñëwul wala ah, waaw mu ne yaayam ñëwul dafa am gàllankoor jërëjëf sëñ Fallou moom tamit ku yaru la Mamor Ndiaye Mamor Mamor Maam Jaara moom tamit mën naa ñëw jëlal ah, waaw moom tamit ab donga la bu nekkoon ci daara ji soxna maam jaaram yi jàmbaar la Mati Gueye ana soxna Mati Gueye Mati Gueye Mati Gueye ñëwal moom tamit dafa jaar rek fi ay magam jaar ay magam fii lañ jaar ñoom Zeynabu gay ma nga nale jàmbaar la moom tamit ci muuraayam bu jekk waaw ñoom tamit ñoom seen xale yëpp fii lañ jaar macha allah ñoom tamit ay jàmbaar lañ maam Xari Diop. maam am Seck am Seck maam Xari Diop maam Xari Diop. maam Xari Diop. maam Xari Diop. Xari ñëwal. Nday Xari. moom Nday Xari lañ gën a ah, daa bari jàmm lool mën a ree lool maam Xari moom kay. da ngeen koy tàcc nag. reetaan gee bari. soxna Ami Seck moo stop. Ami Seck. jërëjëf maam xari ana ñëw na waaw moom tamit jàmbaar la soxna ami Seck jë ngeen jëf. waaw oustaz dani dafa am lu ko marqué ci benn élève ndax tamit xale yi bu ñëwee oustaz moom day xool. bu baax a baax a baax da ci am élève boo xam ni am na ñoo xam ne tëjaguñ mais am na ñoo xam ne tëjal nañ seen bopp bu yàgg yàgga yàgg a yàgg xaw ma yaayee leen tëjal xaw ma ku leen tëjal waaye da ci am élève boo xam ne depuis biñ kiyee ba tey fe moom chaque année di fekk daara ji yiwu ko du dem muy soxna Faati Fall mu ni loolu daal moom da ko marqué ba oustaz ni dama koy neexal ci loolu ndax maanaam moom tëjaluñ leen tëjul de mais ba tey mu ngi ñëw am na xam ne moom dañoo féeteerlu nañ bu yàgg moo la neexale lii ndax tamit kuy góor da nga koy ñaax ngir mu gën a góorgóorlu ngir yeneen moromam yi mën a roy ci moom kon <clears throat> oustaz nga soññewaat bu baax a baax te xam ni ñi ngi tëj waaye tëj te tëréwul ne da bàyyi loolu ndénkaale lu ñu leen koy jox yéen donga yi képp ku ci dem del profito profito ci lan profito ci jàpp ci liggéey bi jàppale say parents ci lan ci togg beeg raxas beeg loo ci man bul féetewoo nelaw rek bul féetewoo télé bi rek télé bi sax léegi xewi na whatsapp bi rek connecté wu connexion na ngeen ko wutal heure te ngeen moytu téléphone yi ak réseaux sociaux yi ngeen di tiim te xam ni lépp loo ci def daanaka jàppal ni yow dootul génnati mën naa egg foo xam mën ngaa nekk fii ci Touba nga siiw egg foo xamante ni ci daanaka man ngaa dund ba dee te doo fa egg siiw googu nag fexeel ba lépp looy siiw na doon lu baax lu yàlla gërëm lu boroom dëkk bi gërëm lu sëñ Muntaxa gërëm loolu moo ci am solo ngeen moytandiku bu baax a baax a baax xam ngeen teg seen tànk ci téléphone yi loolu dafa am solo teyit ngeen di def liggéeyu kër ndax nit war ngaa mën a jàng war a mën a togg war a mën a raxas war a mën a fóot war a mën a yàq loolu yëpp war nga koo mën loolu yëpp war nga ko man kon ñu ngi leen di jaajëfal yéen parents yi di rafetlu seen taxawaay bu baax a baax a baax ñoo ngi leen di jaajëfal yéen tamit yéen waa xibaaru réew mi TV seen taxawaay am na solo di gis nañ fi ngeen tàmbalee ba fi ngeen si tey njàm li ngeen wane nii ba am lii tey seen YouTube mën naa egg feneen ndax jàmbaar rek moo koy mën ak liggéey ak tamit am fu la ca la nekk ndax. seenu groupe whatsapp ci ngeen tàmbalee